mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu ñu leen daal dalalaat jàmm ci beneen invité ci euh, Sénégo invité du jour euh, ñu am tey du Dianjeko président des amateurs kenn dootu ko présenté ti ah euh, moom moom bu ñu waxee làmb rek dañ koy tudd te it actualité bu amee ci làmb am na ci xel moo xam ni war na ko ci mën a génne mu doon intérêt wu làmb président wala ma ne la papa wala ma ne la làmb rek maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ko askan ni ñuy seetaan. Maguette maa ngi lay nuyu ak ñi nga àndal yëpp di nuyu waa Sénégal. di nuyu képp kuy seetaan si internet bi maa ngi leen nuyu di leen ziar nuyu suñu mbokk immigré yi nekk bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla may leen wér gu yaram fan ba ñu am lu ñu indi suñu réew bi parce que dañoo uti dañoo nappi rek yàlla ñu yàlla may lu indi ñu bokk réew mi yëpp bokk seen njaboot eh, di nuyu njabootu làmb yëpp di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq. di ñaanal ñi si feebar yi nekk si kër yeeg hôpital yàlla yëkkati leen. ñu nekk si prison yi suñu borom jénne leen si jàmm. Ah, di nuyu waa làmb yëpp ak làmb surtout nag di nuyu promoteurs yi nga xam ne ñooy tëgg làmb di bëggal amateur yi. ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu président CNG ak membre CNG gépp di nuyu képp koo xam ne nii yaa ngi si làmb daal jiite ay association ñu ngi leen nuyu di leen sant. Ah, xam naa ne li ma lay laaj de xëy na nit ñi di leen la ko laaj. su ma la ko laajul xëy na dama nee ni tooñ dañu la gëj a gis si làmb lan moo ko waral. non euh, xam nga li xam nga jamono moom nit ki sans départ rek xëy na day fekk ma am soxla yoo mais maa ngi ñëw làmb. Hmm. guy geeg kii rek ñëwoon na. Hmm. Reug hmm. donc bii dama amoon xarit bu génn àdduna amoon tamit benn takk. moo tax ñëwuma. des fois événement bon aussi tamit xam nga ne ñu ngi woon si campagne électorale. campagne waaw. yaa ngi woon ci campagne bi ànd ak tamit euh, Mame Mbaye ñaa mais lan lan moo tax premièrement nga opté dem defi ji politique di campagne ak Mame may Niang en tant que président des amateurs nga nekk ci làmb làmb ji soxla la nga jël benn temps dem def ko ci wàllu politique. non ne làmb soxla làmb kay ba léegi daf maa soxla. mais soxla bi ma soxlaa. waaw Euh, moo tax bu ñu demee si politique bi tey bu ñu nekkoon meer de Dakar. làmb di si gis boppam. parce que ñun dañoo sentir ne ville si boppam. moo taxoon euh, Mame Mbaye ba mu ne day nekk candidat ñu ànd ak moom. bu gañee làmb gis si boppam. parce que dañoo gis ne tournoi CEDEAO euh, am na. CNG bind maire bi. te maire bi moo waroon ñëw accueillir gan yi. parce que mm. moom Dakar lañ ko defee. waaw maire bi ñëwul yónneewul. Mm. d'accord ñëwul yónneewul ma gis ne secours tabax yi ñu daan joxe. Mm. làmb daaw na si am. ancien couloir ménager amateur nit daan si am. mais gis nañ ne dañ leen si jindi bari na avantage yoo xam ne tey euh, euh, maire bi budget sport bi pour ñëpp la. gis nañ ne làmb du si am wàllam. d'accord moo taxoon ñu ñu bëggoon dem. kon da ngeen amoon benn projet boo xam ne pour làmb ji la. pour làmb ji la waaw sport. pour sport yëpp programme quoi. équipe Dakar yëpp Jaraaf Jeanne d'Arc euh, Gorée ñëpp équipe yëpp ku dëkk Dakar di bokk si sport bi. Mm. des salles de judo des salles de euh, euh, basket bi. Mm. ñoom bopp ak université club ñëpp équipe bu dëkk képp ku nekk Dakar rek. Mm. nga gis sa bopp si mair bi. d'accord loolu lañ bëggoon. parce que sportif yi gis seen bopp parce que sportif yi dañoo am taxawaay bu am mm. solo. Mm. ak école de football yu ndaw yi nga xam ne tey. Mm. dañuy jàngal xale yi football. mair bi war na am subvention yu mu leen di jox. di leen jàppale parce que loolu tamit vraiment da ngay gis koo xam ne day bàyyi léppam topp ay xale di leen defar. di leen xale yi waroon dem. def yeneen affaire banditisme. nga koy jàngal leneen. pour mu pour mu jëriñ ëllëg. Dakar wala jëriñ boppam ëllëg. ñu gis ne loolu c'est très important te suñu leader muy Mame Mbaye Niang da ko si dugaloon projet yooyu. lan moo tax lan la lan moo la lan moo la yóbbu si Mame Mbaye Niang pourquoi pas du jànjee ko warul woon dem si beneen kandidaa wala beneen coalition ñëw proposer ko benn programme boo xam ni ci wàllu làmb la wala le sport en général pour ñoom bu ñu faloo làmb gis si boppam wala boog yeneen euh, discipline yi. gis seen bopp mais nga dem si Mame Mbaye Niang lan moo la muti woon nga dem ci moom. dama gis ne candidat yëpp programme am moo gën ñëpp tey c'est pas la première fois législative yi. Hmm. ñëpp xam nañ ne Dakar benn da hmm. dem nañ législative gagné ko. Hmm. ànd nañu aussi. pour maire yi si référendum yi gagné ko. parce que dañoo gis ne taxawaayam dafa am solo. gëm na Macky Sall. am na fulla yu muy def. Mm. gëm na boppam. te it mm. wokkul dëgg la. Mm. ñu gis ne programme bu mu def. mooy meilleur programme Dakar parce que ay professeur gis nañ nee nañ ko yow sa programme bi gisuñu benn parce que ñu bëri amuñu programme dañ doon wax nii rek. te moom dafa teg programme am. ànd ak ay gor ñu ànd pour outil. bon boo dégg yàlla bu ñu amoon it làmb lañ si gis seen bopp. looloo waraloon ñun ñu dem parce que man ku ma xam. doo dégg may wax défendre kenn ku dul mm. làmb mm. Mm. bu ma sañoon làmb ñëpp ay milliardaires la ñuy ne bu ma sañoon làmb kenn du jooy dara man làmb dama ko bëgg sama biir comme sa objectif loolu moo taxoon nga duggoon loolu taxoon ñu dem parce que nit ki tamit boo bëggee jàppale wala nga bëgg a xeex dara da ngay dem fañ koy waxee waaw fañ koy defee nga bokk si dëgg la mais fekkee yaa ngi si biti doo ko mën régler loolu waroon ñu dem d'accord voilà euh, muy moment bi nga xamante nii gëj nga ci làmb ji gëj nga ci gëjoo ci mais yaa ngi ciy bàyyi xel parce que yaa ngi woon ci campagne bi comme ni nga ko waxee coow li bëri trop ba tey ji nii coow laa ngi bëri euh, ci côté pay per view dañ ko war a bàyyi pay per view moo rey làmb wala mën nañ ko def ci anam bi wala mën nañ xool nuñ koy defaatee def pay per view pour diaspora bi Sénégal ñu bàyyi leen ñuy seetaan télé bi mu nekk coow lu bëri loo xamante actuellement lan moo ci solution parce que solution boobu il faut ñu trouver ko le plus rapidement possible. Euh, bi mu ñëwee ba léegi man mosuma si d'accord waaye nag d'accord naa euh, promoteur bi siñeenteeg benn télévision waaw ñu jaay image ñu nga jënd mën a seetaan image ñu jaay ko fan si télé bi télé bi télé bi lañ koy jaay waaw télé bi télé bi jënd ko télé bi jënd ko pour wane ko en direct wane ko en ok ku am sa télé hmm. télé bi ne la nag may fay nangam pour seetaan boo ma hmm. fayul nangam doo ko mun seetaan. d'accord loolu moom man moo ma gënal pay per view. parce da ngay dugal léegi am problème. problème technique c'est problème technique. internet xam nga da ngay waaru daal. Hmm. nit ñi dañ lay woo président dama sama kii bi dama jëndoon nii donc coow loolu man xayul woon si man. Hmm. mais li nga wax noonu solution boobu parce que dama waxtaan ak euh, Ibrahima Faye Beuz moom mu ne proposé na sax promoteurs yi. ñu signé ak TNT nga xam ne télévision Sénégal yi ñoo koy jënd ñoo koy teg ku am sa TNT di nga ko am est-ce que loolu du solution. solution la parce que TNT bi defoon nañ ko mooy fi. waaw mooy 99. chaîne 99. chaîne 99. Mm-hmm. ñu koy seetaan mais mm-hmm. am na promoteur yoo xam ne dañ ne li ñu am fii duñ ko am fee. waaw affaire intérêt la xaalis bi la. waaw xaalis bi koppar gi mooy li ñu am fii. si pay per bi am fële. waaw man wax naa seeg promoteur yu bëri interpellé naa leen. ñu ne ma kat wax dëgg yàlla li ñu am télé ba fii moo ko ëpp. Mm-hmm. moo tax ñoom lii moo leen gënal. Mm-hmm. ma ne waaw lii moo leen gënal parce que ñu bari dañuy jënd duñ ko seetaan. waaw ñiy jënd tamit duñ ko seetaan. waaw ban intérêt la ñuy am. dañuy mm-hmm. perte. war nañ xool ci loolu tamit war nañ xool ci loolu. ñaata personne ñooy jënd duñ ko seetaan. loolu aussi dafa doy waar. moo tax man neexuma wax dëgg yàlla de ba mu amee. que njëkkoon def sax. doon nañu xuloo léeg-léeg mu wax yow daal bëggoo suñu ma ne ko man ma ne ko yow fu mu dool nii da nga ñëw pour jaxase suñu làmb ci hmm. parce que ñiy jënd yëpp ñu si bëri parce que Luc Nicolaï moo ko fi njëkk a def hmm. Hmm. vraiment affaire bi da ngay waaru même France ba Amérique dañ lay woo yaa ngi dégg da ngay wax a wax ba sonn mais bëri na tamit ñeneen ñu koy def à part euh, Buzz di Lutte TV ñu koy nuyu au passage am na ñeneen ak ñeneen léegi dafa bëri ay label yoo xam ne dañ di def paper keroog gis naa ay tur yu bëri ah. réunion CNG gis naa ñu ñeneen ñëw fa ñu ne ñoom dañ koy def mais niñ koy defee classique na dugg na fii man daal loolu gëw ma mm, si dara man daal li ma gëm mm. sama kër man mm. am naa canal am na SK TMT Escaf bu doon sama sogo nag ma jënd Escaf sama waa kër seetaan mooy solution. man loolu waaye tamit euh, est-ce que loolu bokk na ci lu rey làmb am na ñoo xam ne nañ loolu. Euh, bokkul ci lu rey làmb ah, parce que xam nga nag. combat bu war a am buzz du am buzz. comme combat bi ñu génn. non lu bëri wax nañ quoi. am nga xam nga loolu. Hmm. ku mu arrangé wul rek nga naan day yàq làmb. waaw du dëgg. Hmm. mais promoteur bi nga xam mooy génnee xaalisam. Hmm. moom moo xam liy yàq làmbam ak lu yàqu làmb. nañu waxati dëgg. làmb am na ñu si ëpp wax bu bari duñu ñu dagg billet mm-hmm. te noonu dàq wax fi dàq fee kaas mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. mais kii jël alalam xamoo fu mu ko jëlee dafa leb bànk wala dafa am jël alalam nag pas maguette pour jënd dara investir dara pour am si dara ku nekk dara nga bëgg loolu d'accord nañ waaye léegi bu xoolee ne dara ji mm. ma def ko en direct aw ma sponsor bu ko jël xam nga sponsor yi day ñëw ne la trois cent millions mu ngi nii defal ñu nangami blouson nangami t-shirt nangam ak nangam jël ñu télé tel waaw négocier ak télé tel boo leen jubóoyee nga fay ko moom lañ bëgg a defanteeg en direct promoteur mooy dem seeti télé bi waxtaan ak yow ngeen jubóo bu jubóog la yow mu ne ko jubóobu ma ak télé bi kat li ma laaj dafa cher mm. léegi maa ngi dem beneen télé mu ne la amul problème seetal télé boo jubal nga ma direct. noonu la. sponsor bi mooy génnee xaalisu direct bi. am na sponsor yoo xam ne dañu la sama blouson nañ ko sol rek. wala nëmbër bi sol sama maillot rek. day fay fay. ah. Mm-hmm. wala defal moom ay bande annonce. Mm-hmm. Mm-hmm. na bande annonce yu bari sama tur. société nay génn. nay génn si langage face à face yeeg xam nga yooyu yëpp na si am. muy visibilité muy visibilité loolu laa soxla. Mm. mais loolu aussi yow promoteur bi aussi foofu lay yem ak moom. Mm. léegi bu amulee koo xam ne fay na ne euh, dama bëgg Sénégalais yi seetaan ko sama produit si lay gën a génn. Mm. amul xaalis boobu promoteur bi lan lay def. bu tëggee làmb ci perte moo ko teg bopp. Euh, kon côté sponsoring dafay poser problème ah, ba tey boobu mooy ñëwaat ba tey gis nga làmb hmm. ku la wax ne billet dina fay ay mbër waxul dëgg waxul dëgg hmm. man man fréquenté naa promoteur hmm. xam naa làmb billet yiy dugg xam naa bu tëggee làmb ba pare li ñuy am xam des fois da gis ku frais quarante millions billet sax doo jaay dix millions wala quinze millions da gis stade bi fees dell bu ñu la waxee li nga jaay billet da ngay tiit donc loolu yëpp am na. Hmm. loolu yëpp nag. Hmm. problème la. Hmm. problème boobu nag sponsor moom waral doo am. nañ wax de dëgg. alors euh, feneen fi ñi nga xamante ni fa la ñuy bëgg a jeexalee sax fa la ñuy yóbbu débat bi muy combat yoo xam ni chaque jour euh, dañuy gis la même chose ah combat 2-2 1-1 2-2 1-1 2-0 loolu rek lañ fi wax Bombardier Balla Gaye Eumeu Sène Modou Lo kese ngay dégg. mais tey jotul jotul tey transition am xale yaa ngi fi jeunes yaa ngi fi combat jànk yaa ngi fi. combat yi gën a neex lool da ngay wax mbëri. waaw nañ bëri xale yi. comme ñoom ñu leen seen mag yi maye sens ñu may xale yi sens. mais promoteur yi nag bëreeg ñoom yi rëg rëg promoteur yi tëgg combat xam ne combat bi neex na. bëreeg ñoom Auguste. waaw bëreeg ñoom ñeneen ak ñeneen. waaw promoteur bañu ñu loolu. Mm. mais dañuy gisul ñu ñu booleeg ñooñu. parce que mm. ñooñu dañoo bañ bëri xale yi. d'accord il faut mbër yi moo tax ñu ne ay rëg ak Auguste. Hmm? franc franc franc franc. Hmm. mbër yooyu dañoo war a yéeg si kaw. Hmm. ak sëriñ Ndiaye numéro 2. waaw ñooñu dañoo war a Serigne ngi nii da nga koy utal combat doo ko am Forza. du am combat. dañuy am te ñooñu dañoo war a yéeg si kaw. bëri ji fekk ñu mag ñi si kaw. parce que kaw amul amul mbër yu bëriwuñu. te ñu ngi presque fin de carrière. voilà donc ñoom nag ñoo war a may xale yi seen sens. comme ñoom ni leen mag ñi mayee seen sens. ñoom ñoo ragal xale yi. mais est-ce que promoteur bi tëgg combat yooyu dafay gis boppam ci combat yooyu moo tax mu koy tëgg. déedéet promoteur day ut combat grand contre petit ba pare. bu ko mënul hmm. am nag. mu mu jàpp ci boyal. mu jàpp si ñeneen. Hmm. mais promoteur yëpp bëgg mag ñi bëri xale yi. kon ça veut dire mag ñi ñooy daw xale yi. ñoo ragal xale ñoo ragal booy yi waaw kay mag ñi ñoo ragal affaire de ragal la quoi. affaire de ragal <laughs> kon bu ñu ko ubbi woon mu gën a yaatu ah kenn gi moom ñeme na kenn gi mais. comme combat boobu moom lu yàlla xam day na Modou Lo Ama Baldé kooku moom. Modou Lo tey may na Ama waaw. Mm. Balla Gaye nee nañu may na. Euh, euh, booy Niang booy Niang. waaye boobu deween la boobu dañ ko xoolaat de. waaw mais ñeneen boobu noonu dañ ko xoolaat nii de. waaye léegi mm. mais mm. ñoom franc mais ñoom rëg mais fii benn may chance rek laa Boy Niang nii affaire boobu noonu dafa doy waar de. père père doy na waar de. père combat bu dàq nañ ko ba jëmmi jamono de. Ah ah, ba léegi na am nag incha allah. combat dàq nañ ko ba déedéet. daal li am solo. Hmm. na am rek. na am rek. nañ ko signé daal waaw ñun dàq ko dàq ko xoolal tey combat Ama Baldé Modou Lo. waaw metti na si promoteur bi metti na si ñaari mbëri. Hmm. ñaata yoon lañ ko renvoyé. mais loolu du combat bu am de man pour man hmm? du combat bu am. du yi mën nañ wax ne combat bu am la ñu signé ko waaye pour ñu bëree ko problème la. lu problème père affaire yi euh, père affaire mafia bi dafa xaw a garaaw de làmb dafa xaw a doy de. mafia amu fi. Hmm. xam nga làmb moom mais gëm nga ne daal ñaari yooyu yëpp danañ ko bëree. waaw incha allah am nañ si yaakaar de. waaw parce que xanaa nag du ay waxi kese. waaw loolu dépassé nañ ko si làmb hmm. dañu wax dëgg te hmm. ñaari promoteur promoteur yu mag lañ. waa Pikine nee nañu ñee dañoo ragal duñ ko bëree duñ ko mës a bëree. ñoom gëmuñu ne sax dina am léegi waa Pikine. ah ñemeetuñ ko sax. man de gëm naa dina sotti incha allah. mais daal kon euh, mag ñi daal nañu may chance xale yi. waaw làmb ji gën a ubbeeku gën a yaatu. daal loolu daal mooy mooy solution. mais est-ce que ñu defee loolu du sax gën a attiré waat sponsor yi parce que tey boo gisee Modou Lo Ama Baldé mën na attiré sponsor. mais Modou Lo Ama Baldé parce que xam combat jànq la. booy ñaar sponsor yëpp dañu naan mm. am nañ public. Mm. mën nañ fecc. combat coow la mën nañ neexal bàng. Mm. combat booy ñaar. Euh, Balla Gaye mën na indi sponsor. mu mm. baax. Mm. dañuy des dañuy naan woon nañ fi. Mm. du ma def sama xaalis. bu may dugal kay damay dugal lu bees xam ne daa si am succès. Hmm? loolu la. alors dernier mot bi li ma lay laaj moo damay génn ci côté làmb mais ci côté sport rek la ñuy yem muy euh, qualification euh, coupe du monde équipe nationale bu Sénégal gannaaw bi ñu jógee coupe d'Afrique. nan nan nga ko dundee en tant que sportif en tant que sénégalais. ah xanaa sant suñu borom vraiment di ko sant ndaxte man bon ni ma gisee woon match bi rek def naa noonu la match bi demee parce que dama doon wax ne Égypte gagné nañu 1-0 ñun tam nañ fexe premier minute yi balaa cinq cinq minutes. ñu dugal ko. Mm. buñ ko dugalee mën nañ dem ba gagné ko. mais ñoom bu ñu sàgganee ba quarante cinq minutes jeex dugg nañu Égypte béyoon ñu ñàkk match. muy quarante cinq premières minutes. quarante cinq première premier mi-temps. ah yàlla dimbali nañu nag wax dëgg yàlla trois minutes de jeu ñu dugal bii. Mm. gis nga ni mu demee mënoon nañ leen dugal lu ëpp loolu. mais li xëy lii la yàlla dogal. Mm. ñu gagné leen par série de penalty mm. deux fois. loolu am solo ah, di ñaan rek. ñu ngi waajal dem coupe du monde dem si jàmm gañe fa tamit si jàmm yàlla may ñu ndam même bu ñu mënul jël eh, Afrique nag moom kenn xalaatul ne mën nañ jël coupe du monde. waaw waaw kenn du ko xalaat. gars yi dañ naan jaru sax xalaat. waaye yàlla mën na lépp mën na lépp waaw. kon nag nañ dem rek ñefe comme que Amérique dañ doon wax noir du fa nekk président dem nañ ba noir nekk fa président. kon kay nañ sant. le rêve est permis quoi. ñu ngi góorgóorlu daal suñu équipe nationale macha allah. Hmm. parce que man keroog ne woon naa daal équipe bi dafa manqué ay pied gauche. ay fu jël ay gaucher parce que am na coup yoo xam ne gaucher rek ko mën a dóor. Hmm. kon noonu nga xamee football noonu loolu yëpp jàngat nga ko. toj nga lool droit bu amee coup franc dangay jël gauche mu dóor ko bu dóoree mun na virgule gars yi mbëkk <laughs> mën na def ah tey ko el tactique yow nag yow yaay el tactico jekko ah el tactico waa football mooy waaw nañ football bu war a dem droite gauche bi nga war a jël dóor ko pour mu def virgule mhm. léegi bu war a dem gauche nga jël pied droit pour mu def nan mu dagg bal bi rek mu def virgule mhm. xam nga xam nga coup franc moom mm. si 18 ak yooyu mm. da nga koy dugal si biir nit ñi waaw si groupe bi nga koy dugal ci biir groupe bi même bu dul sa joueur sax yow waaw ñoom seen jour mën nañ ko mbëkk mu dugg. muy cafouillage quoi cafouillage mën na am quoi. kenn chaque jour bal bi dugal ko si dugal ko si mm. sa mbaxloo bi rek sa bi foofu nga koy dugal. Mm. lu nekk mën na fa am. Mm, kaj yi bu amee baax na. lépp mën na am am ñoom seen bii bee passé hors jeu la leer na ñëpp. la. waaw mais et puis tamit ay dirigeants yu xam euh, côté football. dafa am solo. ñun keroog fekkoon am nañ dirigeant bu taxaw daan ne lii la. ne Aline Cissé waxal capitaine bi mu dem wax ne arbitre bi nañ def VAR. ñu dem VAR ñu def VAR. Mm-hmm. parce que yooyu itam daf si am solo. mais noo gisee supporteru Sénégalais yi si match bi. stade kenn bon supporter wuyu nañu li ñu leen wooyee woon. Mm-hmm. dañoo waxoon na stade bi fees. mais aussi ñuy ñaawlu ni fédération football def si billet yi. Mm-hmm. parce que boo amee réew mu soxla mu soxla victoire. da ngay yemal population billet bi. pour ñu mën a dem. si stade ba mën a def loolu parce que population bi buñ découragé woon yeneen découragé yi kon tey stade ba du am dëgg la donc nit ki bul seet intérêt lu ëpp si yow seetal intérêt réew mi mhm. intérêt réew mi mooy pour ñu qualifier mhm. utal ñuy jaay billet si bu yomb ñu yombal ko population bi mën ko jënd mhm. mën a dem si match ba loolu moo doon yoon te gars yi dañ ko jaayante waaw Sénégal yi dañ ko jaayante parce que ñëpp bëggoon dem stade donc il faut nga def loo xam ne vraiment dina tax ñëpp mën a dem stade hmm. ñu koy jaajëfal bu baax a baax euh, bi ñuy jógee ci côté làmb ji dañ dem ci côté football am lu ñu doon xool ci moom mais gis nañ fi pied gauche ak pied droite ak yëpp virgule kooku technicien moo wax parce que coup moom côté bi mu nekkee rek am na tànk bu ko war a dóor hmm. loolu hmm. moom loolu moom c'est technique kon el tactico jeeg ñu koy jaajëfal bu baax a baax ñu lay jaajëfal wax nañ ci wàllu làmb moo xam ci côté combat yi tournoi yeeg xale yeeg ak li nga xam moom mooy pay per yi ñu ngi lay jaajëfal lan ngay mujjee tàggatoo. bon li may mujjee rek mooy euh, nañu xam ne làmb ñu ñëpp ko bokk. Hmm. waaye nag sans promoteur làmb mun na bañ am. Hmm. man chaque jour damay encourager promoteurs yi parce que vraiment metti na. Hmm. nga dem uti xaalis. tëgg làmb di perte di perte terewul nga ba nga bañ a bàyyi. loolu moom vraiment. nit ñu mel noonu da leen di encouragé. Hmm. moo tax man suñu temps samay encouragé pour moo tax promoteur bu am soxla. Hmm. je préfère ñëw jàppale la ba sa soxla faju hmm. parce que vraiment dañoo sonn te Sénégal aussi il faut ñu ubbeeku. xam ne sponsor bi ñun ñoo ko moom. nañ ñëw pour jàppale làmb ci. mu ñuy jàppale xoola tey football championnat Sénégal. amatul public. parce que fédération bi. ñoom équipe nationale rek lañ gis ne mooy mooy football bi. waaw te pourtant ni équipe nationale amee sponsor war nañ ko wàccee ba sur club logo yi ñu am xaalis. du dëgg championnat yi am xaalis mais ñoom seen affaire yëpp mooy. équipe nationale rek. te hmm. loolu yoon loolu day. day rey football ba pare sax. parce que équipe nationale am na tey euh, boo dimbalee championnat bi ëllëg mooy rapporté si équipe nationale. équipe nationale parce que ñoom ñooy créé jour yi jour a dem football équipe nationale. effectivement. wala de effectivement donc il faut il faut loolu yëpp ñu mun ko euh, euh, wàccee mm-hmm. yaa ngi de mm-hmm. wax ko pour suñu sport bi dox mm-hmm. sport bi pour mu dox loolu moo koy doxal mais boo bëggee jël sponsor yëpp yóbbu ko équipe nationale équipe football yi du ñu am sponsor amul sens développement du am il faut léegi ñu développer suñu football parce que ñu ngi dem point bi pare nag demoon nañ fi coupe du monde am fi xaalis kenn gisul xaalis équipe yu bëri si lañ defaraat seen stade yi defaraat si euh, euh, euh, seen football ba tey ñu avancé ñun tamit nañu nekk si loolu jéem a avancé pas sax du ñu ne état état état état rek bu ñu joxul duñ dem état il faut la ñuy am si football bi ñu defar ko si football bi parce que xaalisu football la dañ ko investir si football bi defar da nga jàppale équipe yi gën a jàppale yenn équipe yi jox leen ay moyens ñu mun a kii ñu xam ne ëllëg dinañu jëriñ di jëriñ mooy li mooy li ñuy wax il faut travailler à la base. ci base bi ngay liggéey parce que base bi moom mooy defar équipe bu yu mag yi comme ni ko Laye Diaw waxee. bu kër yu baaxee équipe nationale yu baax. kon mi ngi noonu. te aussi mhm. euh, ñun tey làmb ji ñu mhm. il faut ñu jàppalante ñun ñëpp. Mhm. promoteur yëpp sonn. ku ko wax ku ko waxul. tey képp ku bëgg a gis Sénégal. bu doon sa sago nga seetaan làmb ci Sénégal. dëgg la mhm. ñëpp ku mu ne ñëpp bëggoon seetaan làmb ci Sénégal. Mhm. Mhm. mais yàlla dogalu ko parce que loolu yàlla dogalu ko. promoteur bi tamit leer na ma bu doon sagoom. télé yëpp kay seetaan. parce que bu amee sponsor bu doy. ku seetaan euh, Sénégal seetaan nga sponsor bi. wala déet. donc moo tax il faut ñu comprendre rek ñun ñëpp war a takku. di wax si réew mi sponsor yi ñëw jàppale làmb parce que facteur développement la day créer emploi boo xam ne macha allah. Mm. donc xoolal euh, euh, bi fi bi fi bi fi corona bi duggee. Mm. ñaata at làmb am problème. kenn dimbaliwu leen. Mm. subventionné nañ ñëpp moom des làmb donc problème. te làmb ji dañ leen waroon jox comme ni ñu joxee ñeneen ñi. Mm-hmm. Mm-hmm. wala déet donc y' problème. Mm-hmm. il faut ñun ñëpp ñu waxtaan. ñu ñi nga xam ne tey dañuy def euh, ci làmb la ñuy dund. def émission làmb man mooy président Amar yow ngay reporter ku nekk war na xool liy jariñ làmb ñu koy wax pour làmb yokk bañ a wax problème personnel. te bañ te bañ cee taay te bañ cee taay voilà bañ cee taay te mu nekk wax joo xam ne wax moo xam ne et ku nekk nag wax dëgg yàlla ñu waxante dëgg rek waxante dëgg man du ma fekk un promoteur yor xaalisam ma ñëw naa ko li nga defee jaadu te man ma xam na mu dek ba ba tëgg làmb ji mais loolu woon du ma ko def dëgg la du ma ko def de mm, mm. dëgg yàlla du ma ko def dëgg la man je préfère jàppale promoteur parce que promoteur moom may utal man li ma bëggal mm. chaque dimanche incha allah moom ma koy bëggal man du ma seetaan football xam nga kañ laa ngi seetaan football. Mm. mais gis national buy football. damay seetaan. Mm. comprendre. Mm. championnat Sénégal jaraaf man laa. bëgg naa jaraaf di gagné. donc mais des fois ma dem stade seetaan jaraaf. fas dama koy seetaan dama parce que suñu cosaan mooy suñu suñu sport mais suñu sport national. il faut ñu ñëpp ñu ànd bokk ndey bokk bay. xeex leen lamb muy njariñ di ñaan aussi ñu ngi préparé drapeau chef de l'État. Diourbel di ñaan tamit suñu équipe ñun Dakar. gañe jël ko ndam li hmm. ñu ñaan képp kuy amateur dëkk Dakar nga jàppale suñu équipe ñu waajal ko incha allah may ñu ndam ñu jël hmm. drapeau chef ñu koy ñu koy jaajëfal bu baax a baax per ju Diagne Diecko di ko ñaanal gudd fan wér gu yaram di la ñaanal kooru jàmm amiin yàlla nañu yàlla may ñu ngi si jublu de ñu ngi ñaan yàlla faaleen yi nag ak hmm. jegeen yi <laughs> eh, ak sekkeen yi ñooñu ñoom elmaali se eh, ñooñu ak mbengeen yi ñoom Gaston <laughs> ñoom Pape Abdou Fall. Mm. ñooñu duñu faral di ak sëwru ñooñu faral di woor. waaw nañ muñ rek te yàlla tax ren nañ muñ rek bon xam ne nag koor gi macha allah nañu muñ daal weer kese la. te ren tombé naag sax sedd mu sedd mu dara sedd incha allah waaw waaw weeru Dakar moom. vraiment kooru Dakar amul problème. neex naa mais dama bëggoon Pape Abdou mu dem Ndar. Mm. walla Louga. waaw wala mu dem Tamba woor fa. Eh. Gaston dem. <laughs> dem fan Kaolack woor fa Sër dem toog Touba. <laughs> di koy jaay vraiment. <laughs> yow nga ñëw fii rek di seetlu fii rek waaw waaw ñun Dakar daal. waaw macha allah. waaw Dakar moom da nga war a di fay di woon ñeenti weer sax. parce que macha allah ëpp naa def ëpp naa def. non non amul problème. man man de une semaine rek doyoon na ma ci. ñu ngi jaajëfal ñëpp merci. di ko jaajëfal di jaajëfal ñëpp euh, équipe technique bi euh, Diouf góor gi ak euh, El Malick Seck mbokk yi jaa ngeen jëf beneen yoon incha allah.